wax la rek waaye moom moo jëm nañ ci daal Cheikh Mouhamadou Mountakha mi ngi noonu ak seen ak jàqale ci teewaayu Cheikh Amadou Moustapha Moussa Abdoul Karam bismillah Başka? Başka Pakistan. Dama nga. est ce que mën nañ ko kii mu jàkkaarloo liggéey. maanaam waaye ngeen may ko mu di xool bu diw. waaw santoon na ko ko fii ci deqali tey liggéey baa ngi mat na yegg na mat na yegg na waaw maire bi léegi nii suñu taal waxee rek ah, yal yàlla tin ci yow waaye noonu it noo ñaan yàlla tin nu ci yow loolu daal moo doon liggéey bi waaw ah, sëñ mi la ko waxoon yàlla dogal nag liggéey bi àgg na sëñ Fallou ngi nii yàlla dogal na sëñ Murtala ñëw na njaboot yi ñu man ñu ngi nii noo ngi nii waaw dégluwuñu kenn ku dul yow waaw nag yow rek ma ne yow rek loolu daal laa bëggoon a wax yow sant nga nu ko yàlla dogal bi koy sant nga roof nu lu tax nu man ko def def nañu ko sant sëñ Touba nag lu na di ciy dugg taalibe yi dugg si nañ ci bokk yi ñeneen ñi dugg si nañ ci ba nga xam ne bu doon lu ma téeñu woon it dafa woyof kon maa ngi sant le taalibe yi yëpp eh, Serigne Touba ci yow ñu ko jox de man di seetlatuma dara ci àdduna man sëñ bi rek lay wut waaw xooluma dul sëñ bi lu sëñ bi néew doo ma ci soxla waaw te it doy nga ma doy goo xam ne nii wóor na ma ne mënuma ah, dëgg dëgg li ne sama xol ma génne ko waaw dama koy bàyyi rek ak Serigne Touba ak Serigne Touba mi la mi la noonu ma jàppal daal kii daal moom njur luñ teg fële la aw semmiñ ñëw ci gàcceguñ ko ci bant bi sax ba def ko semmiñ ñu def ko ci di ko dóor defuma dara lépp yow la caabi caabi yaa ngi mu ne mu a ñaan liggéey bi ngërëmal sëñ bi liggéey ngërëm bu mu am rek képp ku liggéeyal sëriñ bi ngërëm lu mës a am mu mi ngi ñaan mi ngi ñaan ci barke sëriñ bi képp ku liggéeyal sëriñ bi ngërëm lu mës a am mi ngi ñaan ci barke sëriñ Tuubaa yàlla defal la ko. amiin. ande sa kër bu ñu faatu woon tey it baax yàlla mu ne te yéene yi yéene ji rëy na lool te soriwul fañ ko bëggee mu ne loolu rek la soxlawuñ dara sëriñ bi rek lañ soxla mu ne dañu ànd dem sëriñ bi rek mu ne jërëjëf Mbacke mu ne jërëjëfati rek lañ mën a wax ne lépp def nga ko mu ne jëf nga ko wax nga ko mu ne ñee bàyyi ngërëma sëriñ bi rek mu ne lépp li may ngërëma sëriñ bi mu ne wax nga ko def nga ko mu ne jërëjëf Mbacke barakallah bu yomal xaam bu doon sedd nii bu ñu jàppoon ni lay sedd rek alhamdulilahi rabbil alamin jërëjëf waaw ci tool yi ci tool yi jaajëf rek jaajëf waaw mu ne Cheikh Modou Fadal mii fa tabaarakallaa mu ne lii lépp moo ñu ko may moo njëkkee ndigal li moo njëkk am ndigal li te boobu yàgg na mu ne fekk nañ ko ba tàyyi moom képp mu nekk fi mu tax taxawaay bu rafet bii mu fi taxaw mu ne kon nag mu ne ñu ngi sant Serigne Fall bu baax a baax di gërëm. mu ne di ko feddali wëllër gi ñu bokk. mu ne fas yéene koo gën a dëgëral bu baax. fas yéene koo gën a sàmm bu baax. mu ne fas yéene koo ànd moom itam. te di ko ñaanal. mu ne ndigal li mu amoon. ba ñëw fii. nekk fi li fi nekk. mu ne yàlla defal ko ci barkeb sëriñ bi moo xam ni mu ko bëggee waaye yàlla moo ko gën a xam boppam ñoo ngi koy ñaan mu defal ko kon nam ko bëggee ba taxawaay bu rafet bii mu fi taxaw mu taxaw ko fi nekkee ko fi ba njaboot sëñ baa gépp di ko fekk mu nekk fi rek mu ne kon alhamdulilahi rabbil alamin ñu ngi koy sante yàlla di ko sant sëriñ Touba di ko sant di ko sant Serigne Mourtala mi ko joxoon ndigal yi di ko sant di ko gërëm fa tabaarakallaa jërëjëf Mbacke mu ne ak yegg ak yeggale rek Mbacke jërëjëf Mbacke mu ne fii yaa fi nekkal sëriñ bi nekkal ko fi ñun ñëpp jërëjëf Mbacke yegg yegg ak yegg. yegg ak yegg rek. ah sëñ Mourtala. xanaa ba sant rek. ñu àgg. ndax tàll seen loxo